leen ak jàmm kan mooy Samba Sow ange et démon ñaari kanam yi l'observateur xëy tey amal ab gëstu ci nit ki ñi ko jege ak ay mbokkam moom chauffeur bi nga xam ne ñu bëri jamono ji bëggatuñ koo teg bët li mu def am na ñu bëri ñu mu bett tantam di ab responsable politique ca APR nekkoon nit xaritu Fatimata Matar njaay moom moo ko ko recommandé moom moo ko fa yebal mu wutal ko liggéey Samba ba mu doon dund ak tantam ak ay cousin yom musta am benn jafe-jafe foofu benn cousinam moo koy nettali addunaam nekkul saa su nekk la neex ndax ba muy am fukki at ak juróom-ñeent képp la ñàkk yaayam ñeenti at ca ginnaaw papaam it faatu ginnaaw ba papaam faatoo sax da doon jooy ni ab xale cousinam bi moo koy nettali ba léegi Samba Sow du siggi xool nit te ku xolam gaaw a tooy la lii xew ni mbirum seytaane képp la mbokkam yi ñoo ko wax yeneen ci ay mbokkam it ne leer na leen naññ ni fii mu nekk jamono ji moom sàmba mu ngi rëccu li mu def ki ko luwee woon moom it nee na jëf ji daf koo bett nanguwul ni Samba Sow ab reykatu nit la diggante gunaas xurunaar ak waxi naan foo jaar dañ la naan Samba Sow nitu kese la un homme nit ku dul ku dul naan ku def benn mbir bu doy dem ci commissariat central bu Dakaaru dinañ ko yóbbu yóbbuwaat ci kanamu procureur bi njiitu réew mi ne amul seral Macky Sall fourbi ses armes moo nekk ci xët wu njëkk Le Quotidien Macky nga yeesal gànnaay yi faw ñu xeex criminalité bi am Sénégal bëri na ci ay matukaay yu ñu jël ci conseil des ministres benn conseil de sécurité sax moo amoon ministre bi ñu denk kaaraange biir réew mi moom lañ jox ngir mu jëmal projet de loi bi ñeel orientation ci sécurité intérieure kaaraange ci biir réew mi enquête mel ni kuy wax ne yëf yi dafa jot l'état sort de sa torpeur bàyyeeku bi dafa doy bokk na ci mesure yu ñu jël ci conseil des ministres fulla ci anam yi ñuy amee ak yi ñuy yoree ay gànnaay ak ay munitions fexe ba ñu doxal bu baax a baax luwaa yi ñu fi teg ci wàllum xeex màndi ci mbedd yi ak bërëb yi ñuy jaayee sàngara njiitu réew mi yamu ca muy au gouverneur yi ñu def seen kéem kàttan xool seen diwaan wàllum kaaraange nan la fa demee teg ci ñu doxalaat yoon ci wàllu sécurité ak surveillance privée lii ab xeex la ngir ñaawteef jóge Sénégal avec des mesures choc réew mi quotidien mi ngi ciy wax it ci page 5 bu tey jilee comme ñëpp ñu ngi koy laaj fan yile ñu def ab ndëpp national Macky Sall bëgg na gouvernement bi def ab taxaw seetlu yar gi ni muy doxee ci Sénégal rawatina ci ndaw ñi ci indépendance ba léegi lan lañ ci war a changé naka noonu ñu nar a amal ab forum national ñëpp ñi ci laalee toog waxtaan ñu war a wattu kaaraange askan wi ñoom it ñoo war a toog ci kanam muy police ak gendarmerie Macky Sall mi ngi leen di teg pression ngir ñu jël bépp matukaay bu war fexe ba njombe yi bu mu amati ci réew mi Macky tape sur la table moo nekk ci xët wu njëkk bu journal Le Populaire ñëpp xam nañ ni média yi am nañ seen wàllu ba na njiitu réew mi ne émission yi ñeel yar xale yi ak programme yi ci rajo yeeg télé yi nañ ko xoolaat gën koo ñoŋal doxal te gouvernement bi moo ko nar a appliqué mi ngi ci le soleil quotidien national contrat locaux de sécurité yi ngir ñu doxal ko yit lu am solo la faw mu am suñu jafe-jafe bi gën a mag dafa mel ni loolu la jël dogal doxal ko Sénégal nekk na lu jafe rawatina loi yi le laxisme de l'état état bi dafay bàyyi loxoom de mooy gis-gisu laas quotidien journal bi ne xaaral ma limal la yenn yi lu ci mel ni loi bi ñu fi taxawaloon ngir wàññi yàq yi ci cérémonie religieuse loi bi ngir wàññi njëgu bi wala boog loi bi tere ñuy ci lieu public ak loi bi tere ñuy jaay ay sachet plastique booy xool loi yëpp amul benn buñ ci doxal doxal ni mu waree bu état bi appliqué loi yi teg ay daan kan moo koy def ci palaasam maître Amadou Ali kan moo ko wax Barthélemy Diaz am na li mu bëggoon atteem dina door benn fan ci weeru décembre ba tax na la tribune samp laaj peine de mort politique pour Barth dossier procureur de la république Serigne Bassirou Gueye dugal na ko kon ñu fas yéene koo ci ab audience spéciale ci kanamu baar première chambre tribunal correctionnel bu ndakaaru ndax moom mën na woo légitime défense lam doon wax dañ ko doon jéem a song muy aar bakkanam loolu la réew mi quotidien di laaj li mu gis mooy loi bi am na lu mu ci wax lu ci mel ni bu fekkee ni cong bi daf laa bett wala boo riposté mu am njombe wala boog li tubaab di duppee proportionnalité maanaam nit mënu laa kur feñ yow nga jam ko paaka faaw ngeen tolloo doole kon ci kanam juge bi muy attekat bi moo nar a jël dogal bi ñi nga xamante ni duñu ay juge te bëgg a atte Barthélemy mooy yenn ci ay responsable COJER ñoom li ñu bëgg mooy Barth bés bu ñu demee ba ne coupable la ñu tëj ko giirum dundam ñoom ñoo ko wax élection législative yi atum 2017 la laataa ñu cay egg coow li dina bëri loolu li ko waral Sénégal mi ngi wër ab fichier um Sud Quotidien moo ko bi am bu bees bi la ñuy jël looloo jara laaj te soppi dara te juróom benn weer képp moom moo des ci ay élection ginnaaw yéexte yi ñu nemmeeku ci bindu ci fichier bi dina jafe loolu ñu jëfandikoo bu bees bi ki xam-xamam màcc ci wàllum élection di njaga si laane li gënoon kay jamono ji mooy ñu bañ a jëfandikoo fichier bu màgget bi Matar Souran bokk ci manko watu Sénégal ne ay kàddu Moustapha Cissé Lo bettu ko benn yoon moom Cissé dafa ne woon ci turu Macky Sall nii élection yi dina am ci bés biñ ko tànnee ak fichier bu yàgg ba direct info xëy tey ci wàllu politique le Sénégal a-t-il son opposition coalition manko watu waa Sénégal seenub doxalin doxalinu ragal lay nduru askan wi jamono jii réew mi dafa soxla ab kujje bu am doole bu républicaine loolu la yéenekaay bi bind Abdoulaye Mamadou gisee bu Front Patriotique moom moo waxoon démb ne Karim Wade mënta samp nëndëm ci élection yi waaye tontu du forox Victor Diouf ak Toussaint tontu nañu ko Mamadou Guissé du libéral kon na noppi responsable bu mouvement étudiant ak élèves libéraux yi ne Karim Wade bu nekkulee candidat élection du am ci mim réew Toussaint Manga jiite UJTL feelu ko ne bu ñu may benn yoon Macky Sall buntu muy gàllankooral candidature Karim Wade ñu yendu ak jàmm